ma am tuuti lu ma bëgg a seede ci maire Mor Sarr Ba maire Plan Jaxaay parce que yàlla dafa dogal bi ma duggee Tëngéej manifestation bi ma njëkk a fekkee muy joxe ay masque ak ay don ci benn lycée moom moo ko doon def ma gis ne ci wetam dafa am jëmm joo xam ne ñu koy wax madame Coulibaly ma seetlu ne Mor Sarr Ba mi ngi nii di ma dégg bariwul tànk sama biro mais mel na ne du fa jóg ndax chaque jour madame Coulibaly ma nga fa te bu xasee ba dugg ba génn ñaari baat lay yor fu mu toll maire école maire école école maire école maire donc taxawaay bi rafet na xam nga xale yi pour ñu mën a jàng am ay résultats yu baax il faut ñu am ay conditions yu dajaloo te conditions yi mu ngi tàmbalee ci ñu am fuñ dëkk fuñ toog fu baax bu ñu amee jàngalekat yu baax am équipe de direction bu baax infrastructure yëpp taxaw conditions salubrité yëpp taxaw te lolu ci la maire Mor Sarr Ba teg loxoom li wala fi naan fi nga wok fofu moy kasan lolu maire daf ko comprendre li rafetlu bu baax euh, li ñuy wax li fi indi tay muy ay classe euh, donc di tabax yo xamni maire bi tabax na ci l'école bi ak l'école bi fi mu jóge woon

Euh, li wax euh, école élémentaire ëpp na euh, ñetti téeméer li mu tabax ci ay collège maanaam CM mat na ñeenti ñeenti téeméer ak ñett li tabax également ci ay daara ndax yi ngi tabax ay daara ëpp na ñeenti téeméer ak lu teg donc c'est dire sans compter nag lu mat 20 BST maanaam bloc scientifique et technologique 5 CRFP Durum, qui ci ay centres régionaux de formation des personnels d'éducation l'éducation kon président Macky Sall pour foulal affaire yu njàng la. am na lu bëri maire ak euh, conseil départemental ñoo ko war def parce que état mënul def lépp Et comme am état ay dotations yoo xam dina ko conseil départementaux yi defal ko euh, maire yi mais dafa am loo xam dañ ko war Et def que le maire bi def moom war a fekk école amul ay ay ay mir nga def fa miir eh, IEF Fatoumata di sama sœur wax na ko école yu bari fi maire bi def na fa ay clôture man clôturé na école yu bari tabax na fa ay salle de classe école yu bëri defar dafa bureau defal na fa ay bloc d'hygiène bloc administratif bi Covid bi ñëwé joxe na ay thermoflash ay ay ay masque amna ay école yo xamanteni bi yabal na fa ay gardien deug deug lool su ko maire deful man dama xamul lu muy def maire c'est d'abord l'éducation c'est la santé Si defal vraiment monsieur le maire est le ministre de l'éducation nationale ñu les lay gërëm ñu Nous lay di la encourager di la encourager bu baax. gërëm de doon bi am fukki conseil ak juróom ce les su réussiree ma taxaw olof dafa am kaddu yu wax ne na pencum feccum lir bu nexé yaay ji mo japp ci mbag yi suma waxé deug rek liñu mëna def ni gannaaw ak yont bi président Macky Sall mo tax man te fuma toll dama koy wax di réitérer président Macky Sall mo tax ma mëna def limay def def ko ak samay conseil daf ñoo jàppale ci kaw jàppaleñ ci suuf kenn du weddi investi yi nga xam ne état bi koy def ci commune Joxaay commune yu bëri ñoo ñooñu gën a yàgg mais gis ngeen suñu commune ni muy doxee man ngaa xëccoog ñun ay jëm prélever ay taxes waaye doo xëccoog ñoom jëf commune yi ma war yëpp dañuy xëccoog man ay jël ay taxes waaye jëf duñ ko xëccoog man école réalisation liñ ci tabax biñ ñëweek léegi kenn xamul nu mu toll fii ñu taxaw tey rek ñeen fukki million lañ fi def ak benn ak juróom ak juróomi ak juróomi ak téeméeri junni waxtu wi daaw lañ inauguré ay salle de classe unité 14 semaine prochaine foofu lañ jëm incha allahu rabbi semaine prochaine boobu bu duggee ci koor gi incha allah bi pandémie bi ñëwee daaw dañoo dimbali askan wi jël lu mat téeméeri junni tonnes. téeméeri téeméeri téeméeri kilo téeméeri ton ak juroom fuk ma wat ci yenen téeméeri ton muy ñaar téeméeri tonne ceeb ak lu mu andal ñu joxe téeméer yi des na téeméer juroom fuk yo yoo joxna ne sama kaddu sama premier adjoint deuxième adjoint na ngeen ko génne ak dund bu lamuy andal yeb ngeen jébbal ko suñu askan donte tuti na fofu la indi invité ngeen ñew tok xol man limat ñor. ànd ak conseil municipal bi mooy liggéey jàppale askan wi loolu dong ma ñor mais ku may xaar ci plateau yi werante xuloo ah di nga fay yàgg ndax du sama jikko du sama jikko ah. lii nga gis nii balaa ngoon a jot am na ñoo xam ne ña ngay préparé nan nañ def nii nañ def nii waaye nañ def ne ñun nañ def ni ñu suñu kilifa santé mooy son excellence président Macky Sall mooy jëf tabay wax